loolu maa ngi nuyu itam al oustaz Cheikh Rawhan Diaw ci studio bu am solo bii ma fekk mu def ci bunt bi xam naa maa ngi ci bëggoon a ñëw di wax ne eh, photo yi jàmbur yooyu ñuy takk nga xam ne dañuy seet benn foto rek di ko takk di dem ak moom duus waaye di dem moom ci baal yi di ko takk ci mbedd yi itam waaye di ko takk ci palaas mu niroog Eh, ne daal dëgg-dëgg kii daal yemut ak dara waaye nag liñ koy takk nag dañuy fàtte photo bàyyi <laughs> bàyyi yi nga xam ne ñoom ñoo leen sukk jur def ci ñoom dara ba ñu xam-xàmmee ba xàmmee lu neex ak lu naqari xàmmee lu baax ak lu bon waaye na fa wëriñ bàyyi ji dem di takk photo jàmbur foto bàyyi jàmbur bu ko defee loolu moom xam naa bëggoon nañ indi ci ay dëlil bëggoon nañ ñu indi ci ay leeral yoo xam ne moo tax ñuy takk foto jàmbur yi wala boog nga dem ci ab saal fekk fa foto yi kese sa soo bàyyi sax duñ ko fa fekk mu mel ni daal bàyyi ji sukk jur nga xam ne moom la alquran wax ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iya wa bil walidayni ahsanan wa wasayna al bi walidayni husnan ak fi ko yàlla wax yépp فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما وقصد لهما جناح السل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا nga gis ne kooku moom amatul place ci société léegi dañoo wottee baay yi sukk jur daal di leen indil baay yoo xam ne artificiel la baay joo xam ne joxul la nga lekk baay yoo xam ne tegul aloo ci sëb lupp baay joo xam ne du la xottil waaye bàyyi yaa ma neex tax nga dem daa di jël photom takk ko wala nga def ko ci sab saal ba ku ñëw dañuy yaakaar ne moo la jur fekk bàyyi artificiel la loolu de bëggoon naa ñu indi ci ay leeral nga xam ne Sénégal def nañ ko mu nekk farata fi mu ne ba képp koo xam ne rek moo di sëkki benn nga def ko ci sa téléphone wala benn nga def ko ci sa kër benn nga takk ko yii nag te bàyyi ji sukk jur jox mu lekk ba suur regg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 Euh, mbokk waqul ja alxaqu ñu ngi leen di nayu di leen ziyaara bu baax te itam di leen ndokkeel euh, di nuyu Seydi Aboubacarin ci laajam bi nga xam ne laaj na ko xam naa euh, ci poson laajin bi am na ku koy dégg dafay wax ne lii de mu ngi koy laaj waaye moom ci jëmmi boppam àndut ci ndax dafa am li ñuy tuddee istifhamul inkaar maanaam léeg-léeg nit dafay laaj waaye fekk li muy laaj moom daf cee ñàkk ànd ba nopp am lu ñuy tuddee istifham boo xam ne istifhamu taqrir la mooy nit ki dafay laaj waaye li muy laaj daf koo gëm ba noppi dafa mel ni nag eh, Cheikh Aboubacar ci poson laajin bii mu laaj laaj la boo xam ne laaj loo xam ne maanaam gëmuloo ko la mooy wane ne daal loolu warta mën a nekk eh, ma yem ci rek ne xaaral ma tontu ci balaa kilifa yu mag yi di ñëw xam naa li nga xam ne moom la wax ci ñaari baay yi muy waajur bi nga xam ne moom la ñu tuddee ak waajur Euh, asulbiya wala waajur bi nga xam ne waajuru li ñuy tuddee waajuru deret la euh, ak li ñuy tuddee waajuru ruuxu waajuru ruuxu moom duut loo xam ne dafa bees ci lislaam waajuru ruuxu beesut ci lislaam euh, jël sa waajuru ruuxu it maanaam féetale ko kaw ci sa waajur wi nga xam ne moom mooy sa waajuru deret loolu it nekkul lu bees ci lislaam te ku muñ lislaam xam ne nekkul lu bees ci lislaam bu ñu xoolee ci diina lislaam yenentu bi sallallahu alayhi wa mooy kilifaay ñëpp masalan ruuxu yenentu sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy tuddee abul arwaaxi dileet ko ku ne xam na ne yonentu am na ay doom waaye yàlla wax na ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum kon yonentu bàyyi ruuxu yi yépp la lu tax ñu tuddee ko bàyyi ruuxu yi mooy ku ne xam na ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bépp tiraanga wala mbëggeel walla cofeel boo xam ne warees nañ koo jox waajur moom lañ war a jox cër ba ëpp ba moo ñu war a gënal suñu waajur yi nga xam ne moo ñu jur léegi nag dafa mel ni ki bëgg laaj ne lan moo tax yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam war ñoo gënal suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñu sukk jur xam nga loolu matul laaj euh, boo demee ci xadisu anas ibnu malik bi nga xam ne téere yu bari indi nañ ko euh, imaamul buxaari riwaaye na ko nasaa yi riwaaye na ko ibnu maaja génnee na ko muslim génne na ko te ñoom ñëpp ci baabul iman lañ koy génnee mu nekk xadis boo xam ne yonent bi dafa wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wannaasi ajmain amul kenn ci yéen koo xam ne ngëm yàllaam dana kenn ci yéen koo xam ne ngëm yàllaam dana mat am na ñu koy firee sax amul kenn ci yéen koo xam ne dina am ngëm yàlla ndara bu dama nekk man muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko gënal boppam ndara bu dama nekk di ko gënal doomam jim sukk jur ndara bu dama nekk di ko gënal baayam ji ko sukk jur ndara bu dama nekk di ko gënal ñoñam muy nijaayam ak bàjjanam ak mbokkam dara bu dama nekk di ko gëna mbooleem nit ñi fépp lu ma la mbooleem nit ñi rek àggoo ci ngëm yàlla sayidna omar ibn alxataab radiallahu anhu ñëw na na ko yow yonentu bi salallahu alayhi wa man de bëgg naa la lool yaa ma gënal waaye dëgg dëgg gënaloo ma sama bopp lam ko tontu mooy def ko ne ko xatta al aana yaa omar kon yow amagoo ngëm yàlla gu mat Seydina Omar dem ba mu yàgg mu ñëwaat ne ko yaa ma gënal sama bopp foofu gënal ma sama yaay gënal ma sama doom gënal ma sama nangam mu ne ko al aana yaa Omar al yaa Omar al yaa Omar kon Seydina Aboubacar laaj bi nga laaj li muy li koy firndeel mooy loolu yonentu baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne fekk gënalul la sa ndey ak sa baay fekk gënalul la sa waajur fekk gënalul la say mbokk yëpp àggagoo ci ngëm yàlla lan moo may yenentu bi dagara jooju noonu su ma la ko waxee da ma naan yenentu bi nag ab yenentu la yàllaa ko yónni waaye bu dee Baye Niass mi nekk fii Baye Niass duut ab yenentu bu dee Seydi Hadji Malick duut ab yenentu bu dee Cheikh Ahmadou Bamba duuñ ab yenentu ma ne la naam duuñ ay yenentu waaye ndone la yenentu bi lañ yor ndax al ulama warasatul anbiya loolu xadis boo xam ne sax na la yonentu sallallahu alayhi wa wax ne boroom xam-xam yi ñoo doon ñooy dono yonent bi léegi lan lañ ko doon ne du ay xaalis du ay matériel waaye ci xam-xam lañ ko doon ban xam-xam xam-xamu jub ak jubal nga xam ne lii nga doon am boo gisoon yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba man laa teg ci njub goo xam ne sa waajur mënut la faa woon a teg mu teg la ci njub goo xam ne sa euh, maanaam doom mënut la fa woon a teg mu teg la ci njub goo xam ne munoo fa woon a teg sa bopp nga war koo bëgg-bëgg goo xam ne it nag bëggoo ko sa bopp mu war laa gënal sa ndey war laa gënal sa baay ngir lan ngir roy xaddis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi te at euh, maanaam bi ma nett li léegi te anas ibnu malik wax ko ñaareel bi ci tegee mooy euh, ñi xam histoire yëpp xam nañ histoire u sayd ibnu al aarish sayd ibnu al aarish bi nga xamee ne maanaam euh, yàlla def na ci dogalam euh, mu tàbbi ci loxool yonent sallallahu alayhi ndax ku ne xam na ne xadijatu moo ko moomoon mu tàbbi ci loxol yonent sallallahu alayhi wa sallam bi jox ko mu tàbbi ci loxol yonent bi ndax xadijatu moo ko ko jox Sayd ibnul Haaris moom bi mu demee ba mbokkam yi waajuram yëg ne Saydu kat maanaam mu ngi Makka mu ngi ci yeneentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ànd ak nijaayam ñu dal di ñëw fekk ko ci kër yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam waajuram dal di wax yenentu na ko Seydou mii de maa ko jur te dama ko bëgg lool comme nag yéen yenay xettali nit ñi nekk ci ay jafe-jafe yenay dimbale képp ku nekk ci jafe-jafe ma bëggoon nga dimbale ma rek ma jot suma doom ma delloo ma ko ndax man dama ko bëgg lan moo tax yenent bi jëlut Seydou rek delloo ko ko wane ne waajuram la waaw moo ko sukk jur te nag euh, alquran dafa wax ne wa bil walidayni ihsanan comme ni nga ko waxee yenent bi dafa oo Seydou mu ñëw mu tànnaloo ko ne ko ñii say waajur ndax xàmme nga leen yenent bi ne ko waaw kii suma baay baay tax la kii suma baay la kii suma nijaay la mu ne ko dañoo ñëw jël si la léegi nag su fekkee ne tànn nga ànd ak ñoom ma bàyyi la nga ànd ak ñoom boo tànnee des fi ma bàyyi la nga des fi Seydina yonantu bi man duma tànn kenn ci sa kaw duma tànn kenn ci sa kaw man tànn naa des ak yow waajuram na ko toskora ñaal na la yow wiir kanaa xàmme ma man la sa baay kii sa nijaay la kii sa baay tax la ndax dangay tànn xubudiyatu maanaam alal urriya ndax dangay tànn xubudiya ci urriya mu ne ko wallaay déedéet waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi du ma tànn benn waay benn dara ci kawam man yonent bi laa tànn amul dara lu mu ko gënal léegi xikma bi yonent sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci loxoom di wër ci mbedd màkk yi di wax ne yëg leen ne Seydou mii sama doom la ba tax ñu ko doon woo Seydou ibnu Muhammad cër booba direct que alquran wàcc na ne ud'uuhum li abaihim teewut cër booba des fi mooy yenentu sallallahu alayhi wa sallam leer gi ne woon ci moom di jubal xam gi newoon ci moom di xamle loolu moo doon sabab maanaam Seydou tànn gi mu ko tànn bàyyi maanaam wëllis baayam ji ko jur amut ci woon benn bàkkaar waaye sax boog njëriñ la ci amoon loo xam ne jéggi na dayoo kon loolu lu jar bàyyi xel beneen bi ci tegee mooy euh, xiyaas ibnu rabia nga xam ne mbokk la woon ci abu jahlin keroog bi mu tuubee dugg ci diina lislaam islaam waajuram bu jigéen dafa wax ne dootul toog ci ker bu maanaam xiyaas dafa génn ci diina ji mu nekk bàyyi Muhammad ànd ak moom ngir àq njurelam wala moom dana dee daf na yaay boo yeboo nga lekk boo yeboo nga naan yeneen tubee ma la gënal téeméeri junne yoon kon Seydou Aboubacar loolu du gan ci lislaam suñu mag ñi nag wala sëriñ si nga xam ne tey yaa ngi gis ñu di leen màggal màggal googu wala boo nga gis na ñoom lañu tuddee abu ruux mooy bàyyi ruuxu li tax ñu tuddee leen bàyyi ruuxu mooy doomu aadama dafa am lu ñu tuddee nafsu am na ñu tuddee ruuxu nafsum nag euh, yaayam a tax mu juddu ndax nafsu mu ngi sosoo gannaaw boo xamee ne euh, masalan euh, sëy am na walla sëy ñàkk am ànd am Euh, toqantelu mën yu toxo ci ku góor dem ci ku jigéen mu ëmb ko mu di walbatiku ci ni ko yàlla waxee alaqatan mudqatan ba ni muy àggee ñu koy oddee yax ba nafsum di ñëw léegi nag su ko defee ñu jël ruuxu daldi ci wal ruuxa boobu nag ruux la boo xam ne duut lu ñu defaree ci mën yu waaye moom dafa ànd ak mën yu bi ñëw wala boog nga ne ruuxu njëkk na fi maanaam alima euh, nu mu tuddati yi nga xam ne éléments yi nga xam ne moo formé jëmmi doomu aadama loolu tax yàlla wax ne def na ci ruuxu ruuxam boobu nag dañuy wax ne maanaam ulama yi ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy yëngatu ci wàllu euh, al mutasawifoone yi sax laay jël dañuy jël li ñuy tuddee alwar arwaax ñu ne arwaax yi maanaam dafa am lu ñu tuddee aalamul arwaax mooy ruux yi ci boppam ñoo fi njëkk jëmm yi te loolu yaakaar naa ne ñu bari danañ ko nangu ci groupe bi euh, boo demee ci xilaasu saxaabi da nga dégg Seydi Xaaji Malik di wax ne xuyuunul arwaaxi min nuurin xuddan bajasat fa innahu jinsu ahla mahdini sutmi kon ruuxu bi nga xam ne mooy bàyyi ruuxu yëpp muy ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddee ko ruuxu laxsam nga xam ne ci la ruux yëpp jógee loolu moo tax képp ku doon maqaamam yenentu boobu sallallahu alayhi tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ay ay arwaax yi nga xam ne dañuy naanee ci yow ñu tuddee leen ne ñii yow yaay seen bàyyi ruuxu gis nga am na nit ñoo xam ne lu ñu jege jege jege kër Seydi xaaji Malick ak lu ñu bokk bokk ak moom Seydi Hadji Malick du seen bàyyi ruuxu waaye Cheikh Ahmadou Bamba mooy seen bàyyi ruuxu moo tax foofa la ñuy naanee ji comme ni nga ko waxee ay photom la ñuy takk comme ni mu ko waxee moom la ñuy jàpp ne mooy seen bàyyi ruux am na ñoo xam ne lu leen Cheikh Ahmadou Bamba jege jege jege jege jege duñ fa naanee ndax du seen bàyyi ruuxu waaye tuwaawan la ñuy naane ji si ndax mooy seen bàyyi ruuxu am na ñoo xam ne ñaar ñooñu luñ leen jege jege duñ naanee ci ñoom waaye ñu ngi naanee ji ci kër Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ndax mooy seen bàyyi ruuxu kon bàyyi ruuxu loolu beneen affaire la boo xam ne mu ngi tënku ci wiraasatu muhammadiyatu bi nga xam ne. yàlla nga ko def mu ngi dox comme ni nga xamee ne baay ji sukk jur la wala yaay jii sukk jur la danga jaar ci ñoom rek waaye wóor na la wóor yàlla ne masalan maanaam jaar gi nga jaar ci ñoom amul dara loo xam ne manqué na ci ñoom ndax jëluñ benn bët jox la jëluñ benn tànk jox la kon ku jur doom dootoo amati bët dootoo amati tànk waaye yàlla daf koo jaarale ci yow mu nekk ay jaaruwaay nga war leen a jox cër moo tax yàlla nee na maanaam dénk nañ doomu aadama comme ni nga ko waxee ci ay waajuram mu rafetal jëm ci ñoom waaye nag loolu tënkut ne dénkuñ ko mu rafetal jëm ci keneen rafetal gu ëpp gim rafetal ñaari waajuram déedéet euh, beneen bi ci topp mooy ci sa laaj bi wax nga ci ne maanaam mu mel ni dañoo nit ku ne dafa am territoire xam nga Seydi Aboubacar yow saalum saalum nga Eh, bu ma lay tontu dama lay delloo ca tool ya ca Saalum xam nga ne àll ba ca Saalum ba fa suñ maam yaay sanc dañ faa fekk àll bi àll bi yàlla suñ borom subhaanahu wa moo ko moom suuf si yàllaa ko moom eh, waaw léegi lan moo indi tey képp ku sa bàyyi xamutoon ay tool daggutoon ay tool ca àll ba amuloo fa tool maanaam tey ñi seen bàyyi goroon tool ya ñëw aaki moo tool ya ne ñoo ko moom at mu nekk ñoo koy bay amuloo droit dem bàyyi seen tool mukk ndax ñoom ñoo ko moom waaye ñoom ñu def ba moom suufu yàlla ci kon dafa am euh, masalan benn liggéey buñ def euh, ba moom ko mooy fekk ko mu nekk xàll ñu gor ko dégg nga buddi pakk ya fa nekk dégg nga gajj gajj ya sakk yolnde ya fa nekk ba pare di fa bàyyi ba mu nooy mu nekk seen ab tool ñooña seen bàyyi am na bàyyi ñu nekkatoon ca dëkk ba waaye tey wala boog ñooñu am na ñu nekkatoon ci dëkk ba amuñ droit bay seen tool lu dul ñoo leen ci jox ndigal bañ fa jógee seen doomu ko yoon ñu koy donnante te xam nga ne suufu yàlla si yàllaa ko moom li def nag tool yooyu noonu mu am ay territoire bañ na tool yi waa ñange na ko moom tool yi waa mbayee na ko moom tool yi waa njóoba na ko moom loolu moo def nag suuf si yàlla si mu nekk ay territoire ñu ne fii mooy territoire Seydi Hadji Malick ndax fi la doon liggéeyee di fi yare fii mooy territoire territoire u Cheikh Ahmadou Bamba fii mooy territoire sa Seydi Hadji Malick fii mooy territoire u Cheikh Ibrahima Niass te itam loolu amul benn problème ndem lële moo amul problème waxuma la ak lii nag ñaareel bi ci tegee mooy yenentu yëpp dañoo amoon ay territoire yenentu bu nekk fa la yàlla yónni sa territoire ku ne xam na ne yaa ngi fa doon liggéey dafa doxal la nga fay doxalee ba balaa yàlla yónni yenentu bi salaa salaam di ko wax na ko illa nnaas wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónne wuñ leen dara nga nekk ab yonent waaye wa ma arsalna illa kaafatan leen dara ci mbooleem bindeef kon territoire boobu ngay wax loolu dugut lu mën a ñàkk ñaareel bi ci tegee mooy comme li nga wax kenn ku nekk am màndarga ñu gis la nga war a wax ne kii mooy sama sëriñ loolu mooy li dawut di koy naafeq ndax lislaam yàlla dafa wax ne siimaahum fi wujuhihim min asari sujudi dalika masalum fi tawrat wa masalum fi injil fi injil kon ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi ñoomu seen màndarga foo leen gis ñu xam ko kon nga nekk taalibi Cheikh Ibrahima Niass ñu xam ne taalibi Cheikh Ibrahima Niass nga loolu duut problème ndax nit ku nekk lépp lu nekk ci yow dafay feeñ lu nekk ci sa xol bi dafay feeñ ci sa euh, jëmm ji nga nekk taalibi murit xam ne fësal ne mu murit nga loolu amul problème su problème amee ci loolu lan la mooy te nekk gi nga nekk taalibe si Ahmadou Bamba ak nekk gi ma nekk taalibe Baye ak nekk gi ka nekk taalibe Seydi Hadji Malick warta mën a tax nag ñun ñu am séparation ci suñu xol yi ndax li tax mooy ku ne xam na ne mënuñoo fexe fexe ba ñi bokkut baay bokk baay ñi bokkut yaay bokk yaay waaye tey bu fekkee ne suma baay ak sa baay ñoo bokk benn baay waaye maag yow bokkuñ baay dëgg-dëgg nag war nañoo mën a respecté wante war na ñoo mën a joxante cër war nañoo mën a bëggante ba dem kon nekk taalibe bàyyi du mooy problème bi nekk taalibe si Seydi Hadji Malick du mooy problème bi lii problème bi mooy gannaaw boo ko nekkee ba noppi nag nga bàyyi xel ne nag fonk gi nga fonk sa baay noonu nga war a fonkee bàyyi jàmbur fonk gi nga fonk sa sëriñ noonu nga war a fonkee sëriñu jàmbur suñ ko defee su ko defee maanaam ànd bi dana mën a rafet dana mën a dem waaye problème bi nekkut ci maanaam xàmmaleku gi wala trottoir bi walla nàngam beneen bi ci tegee te foofu lay tëjee mooy waaw beneen bi ci topp mooy euh, ci sa audio bi dafa am wax joo wax mooy bi nga demee ba ci mujjanteel ba mooy di topp bàyyi jàmbur maanaam loo xam ne yàlla diglewu ko aha kañ yàlla digle nañu topp maanaam képp koo xam ne moo ñuy gindi gis nga bi mu diglee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne atiu allaha wa atiu rasul teg ci ne wa ulil amri minkum loolu tegtale ne ki yor mbir mi dafa yeeyoo topp xam nga foofu yàlla dugalut fa waajur waaye ki yeeyoo mbir mi bu dee dañoo jël atiu allaha maanaam ci wàllu diina topp leen yàlla ci diina ji gëm ko Euh, defal ko tawxiid mooy wéetal yàlla waate or rasul topp leen yonent bi ci sunnaam waaye topp leen ko ngeen ngeen jub ndax wa in tutiuhu su ngeen toppee yonent bi da ngeen jub kon topp leen ko ngir mu gindi leen waaye wa ulil amri minkum mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wirasatu muhammadiyatu ca gannaaw yonent bi di ko doxal na ngeen leen topp ñooña nag bu fekkee ne yow sa bàyyi bokkut yi waaye bàyyi jàmbur a ci bokk ci deret yow dangay bàyyi sa baay ji nga xam ne sa baayu deret la waaye amut wirasatu muhammadiya googu yàlla doon wax ne nañ ko topp amut wirasatu muhammadiya boobu yonent bi doon wax ne xatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa naasi ajmain dara bu dama ko gënal boppam gënal ko ndeyam ak baayam gënal ko nit ñépp comme moom amut ko sa baay jooju noonu nag da koy dem nag utee ko ci bàyyi deretu keneen da nga xam ne moo ko am te su boobaa kooku mooy nekk sa bàyyi ruuxu kon su boobaa toujours ñaari martaba ndax li tax mooy innama yaxsallaa min ibaadi al ulama dégg nga wala euh, li alquran wax na narfau darajaati man nasaa kon yàlla mooy jël daraja jox ko ko neex te kum jox xam-xam jox na la daraja kon sëriñ siñ topp noonu la demee waaye du ne topp ak caaxaan la rek comme nu ko ñu bari foogee bokkut ak nag eh, kii toog rek xëy na jël benn fa la takk di woy sama sëriñ barke diw sàngam te moom amut lum jëriñoo ci moom amut lum jëriñoo ci njàngaleem amut lum jëriñoo ci xam-xamam kooku moom yaa ma neex rek la loolu nag foo dem am na ko waaw loolu foo dem am na ko waaw foo dem rek am na ko kon su ko defee daal xam naa waaw beneen bi mooy tudd nga fi lu mel ni maanaam jël alal dem di ko jox bàyyi sa waajur muy lekk dëxin <laughs> nga dem di ko jox sëriñ bi yooyu lu ñu war a seetaan la sëriñ bi nga xam ne moo am oto moo am nangam ak nangam xam nga Seydi Aboubacarin maanaam hadiya yaakaar naa ne loolu wax nañ ci lu bare bare bari bari bari du lu nit mën a dàq ci lislaam buñ doon dàq ci lislaam sax boog dañuy dàq sarax te sarax xam nga ne mënee su koo dàq ndax ay taxe ci ñëw lu tax ma ne bu ñu doon dàq moom la ñuy dàq sax mooy moom yonent bi du ko lekk mboolem kuy sëtu yonent bi doo lekk doo lekk sarax waaye xaddiya moom yonent bi daf koy lekk mboolem kuy sëtu yonent da nga lekk xaddiya kon kay xaddiya dara lu ko lu lu gën a dagan xaddiya moom xamul nit ku liggéey ci alalam ba noppi nag jël ci alalam dem jëpp yëpp sëriñam xaddiya jox xaddiya sa sëriñ takkalawut ne maanaam sa sëriñ e, dégg nga masalan xaddiya ji nga koy jox dafa ñàkk moo tax nga di ko ko jox déedéet xaddiya duñ ko duwul ne faqiir lañ koy jox faqiir sarax lañ koy jox kon sëriñ bi nga xam ne am na otoom am na këram moo la ëppale fuuf nga nga nga nga xam loolu nga jël ci sa poos ñaar téeméer wala nga jël ci sa poos junne ñëw jox ko ko hadiya hadiya boobu nga jox ko ko dafa am yow lu muy waral ci yow looloo tax nga jox ko ko li waral loolu moo di ku ne xam na ne am Cheikh Ahmadou Bamba wax ci benn woy woy bu am solo mooy tuubaali xabdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw bil hidayaati ni nga xam ne noonu ngay amee mëdët ci sa sëriñ mooy amee tëbbum gi mën naa nekkee bi xidma maanaam ci liggéeyal ko mën naa nekkee bi xubbin wala ci bëgg ko mën naa nekk bil hidayaati wala ci jox ko addiya ndax ku ne xam ne ne xadis wax na ne tahaadu tahabbu joxante leen xaddiya ndax ngeen bëggante kon ngir nga fàggu mbëggeelu sëg sëriñ yóbbul ko hadiya jox ko loolu dëgg-dëgg kenn mënut la cee jëm ci lislaam doomu aadama nag alalam ñetti xaaj la ko war a def dundam it ñetti xaaj la ko war a def benn sulus bi yàllaa ko moom benn bi boppam benn bi ay waajuram li sa waajur moom boo ko joxee ñeneen tooñ nga sa waajur li nga moom boo ko joxee keneen tooñ nga sa bopp waaye li yàlla moom boo ko joxee keneen tooñ nga yàlla li yàlla moom nag nga jël ko jox ko ab sëriñ loolu la ñuy tuddee hadiya nga jël ko jox ko ab sërif nit ku baax loolu la ñuy tuddee hadiya nga jël ko jox ko kilifa diina loolu la ñuy tuddee hadiya nga jël ko jox ko sax sa mbokk mu baax dees ko tuddee hadiya kon loola du lu nit mën a dàq loola du lu nit mën a dàq te itam àdduna noonu lay demee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nekkoon ay nit di jël seeni gàtt di jël seeni alal di romb seeni waajur yi di ñëw di ko ko jox te yàlla watu waxut ca dara ndax lañ ko doon jox hadiya la te hadiya jooju ñu koy jox ñoom dañ ci am yool ni nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam loola moom itamit dagan na ci moom mu lekk ko dara nekkul ci ndax nit ku jël alalam jox ko forcé wut kenn kon sëriñ bi toog ab nit jël hadiyaam ñëw jox ko ko dëgg-dëgg loolu kenn mënu ko dàq ci lislaam te loolu lu rafet la te lu yàgg am la suñ bëggee nag jël jamono na léegi jamono bi nangam ak nangam delloowuñ ko ci jamono bu njëkk bëgg a dàq sëriñ bëgg a dàq taalibe bëgg a dàq xitma bëgg a dàq mahabba suñ dàqee loolu lépp su boobaa ñun dootuñu amati sax diine ndax respect dootu amati ci ñun kilifa dootu amati ci ñun te ko amul kilifa seytaane nekk sa kilifa te buñ dàqee kilifa yi ne kilifa yi ñu jox suñu alal lu tax ñu leen koy jox lu tax ñu leen di seeti lu tax ñu leen di màggal ba suñu waajur lu tax nangam li sama sëriñ man bu ko sama bàyyi manoon du ma dem ci sama sëriñ ñaareel bi ma fàttali la ne bëri na am na koo xam ne bëri na koo xam ne bàyyam mooy sëriñam ndax li tax mooy baayam mooy bàyyi ruuxum bàyyi nis radiyallahu anhu waxoon na ay doomam ne leen su fekkee ne ñaari doom laa am doomu deret ak doomu ruuxu ci waxu baay mu ne su ngeen nekkee doomu deret ci man xem ci ñi nekk doomu ruuxu ci man danañ leen jiitu kon nga xam ne cër bi ruuxu di joxe boobu deret mënu koo joxe loolu faaw ñu xam ko ndax fa idaa nufixa fi suuri falaa ansaaba baynahum yow may sin buñ foolee buftu bi ndono dootul amati looloo tax yenentu waxoon Faatimatu Zahra na ko ngel bu nit ñi ñëw yowmal xiyaam indi seeni yu baax ak seeni nàngam yow nga dikk naan yenentu bee ma jur mënuma laa jëriñ dara ci yàlla mooy wane ne lii nga askanoo du la jëriñ dara ci yàlla waaye sa bàyyi ruuxu mën na laa jëriñ dara ci yàlla ndax li tax mooy soo ko toppee mu jëriñ la kon Faatimatu su defee yenentu bi bàyyi dara tam rek xem ci du ko jëriñ waaye bu ko defee bàyyi ruuxu mu jëriñ ko comme ni nga xamee ne man su ma defee suma bàyyi bàyyi dara fekk loolu rek la man ci man loola dana ma jëriñ ci àdduna waaye su ma utut bàyyi ruuxu koo xam ne moo may ginde bu yowmal qiyaamee du ma am njëriñ ci àdduna ndax sama bàyyi ji du ma jëriñ ndax yowmal qiyaam bàyyi ak ndey ak doomu amu fa kon loolu dëgg-dëgg Seydi Boubacar maanaam mbir yu leer la yoo xam ne fu mu tegee fu leer la di lekk nag maanaam ñi ñuy tuddee salafiste yi dañ koy bëgg a jëm waaye dëgg-dëgg dañ koo xamul rek